Aliou alo alo allo Aliou na nga def. oui ñu fi alhamdulilah. waaye na ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah. ah des na ma macha allah macha allah. jërëjëf. waa Cissé bi la woon. jërëjëf. comme Sénégal daa bari dossier ba tey ban Cissé ngeen ban dossier ngeen teg ci taabul ji. Euh, dañuy waxtaanee mbirum euh, Bougane Gueye Dany démb conférence de presse bi mu amal yëkkati ay kàddu jëmale ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nguur gi ku su mel ni président de la république Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko xam na ni daal ñoom amuñu xam-xam pour yor li nga xamante ne moom moo di xew mi te sàkku na ci askan bi élection yu daal di dégmal muy législative bi ñu jox opposition bi li nga xamante ni moom moo di majorité ci assemblée nationale. waaw Bougane day moom wax dëgg yàlla vraiment loolu moom kenn mënu ko bañal. kenn mhm. mënu ko koo bañal léegi am solo daal nañu jéem a nañu jéem a civiliser politique bi daal waaw mais nag mhm. citoyen yi moom bu ci kenn ku ne la la kenn ku ne daal fexeel ba looy booy looy yëngutu rek nga dem xool lan la ci constitution bi wax dès mhm. que constitution bi may na la li ngay def daal loolu man aw ma ci amul amul benn kenn warul amul amul aw ma ci problème et puis le reste tamit ñi ñi ñi ñi nga xamante ni tamit c'est des ay militants lañ yu bokk ci yeneen i parti tamit nañuy nañuy nañuy nañuy bàyyi di sànni xeer ci loo xam ne teguñu ko fen ci ban ci lan teg bul bul bul laal suñu leader rek yooyu yooyu moom vraiment doo man jublu sopp ma ko daal parce que vraiment daal waaw euh, nañu jéem a civiliser daal nañu jéem a civiliser te xam ni ñoom il faut ñu xam ñoom ñooy wax toujours ni population bi yeewu nañu population bi yeewu nañu population bi jiitu nañ leen kon il fallait que ñu ñu ñu ñu xam ni ñu jéem a tamit civiliser li ñuy def te xam ne phénomène passif moom benn voie benn vague la bu fi jaaroon rek boo xam ne moom ñëpp dañoo gëm rek lu maanaam ànd ak ñoom ci li leader bi doon et puis Ousmane loo ko mën a waxal même boo farut ak moom it vraiment lim même bi muy opposé wu tamit li lim doon lim doon wax itam ci da ko doon argumenté. da ko doon argumenté te itam mënoo ko woon a doonul loo woon a mën a weddi mais wax di opposé wu opposition opposé wu boo xam daal da ngay jël wax ji rek di sànni te du sànq te amul benn fondement tamit amul benn bon donte dinañ dinañu tudd ay ay ay mots dinañu tudd fa mu xewee mais tout cela bu fekkee li ngay wax am nga ci loolu leer bon li ngay wax c'est pas des ay document confidentiel yaakaaruma ni am na ci régime bi li Macky Sall daan def ni document confidentiel la boo ko génnee ñu jàpp la amul ci amul ci régime bi ba tax na régime bi moom lu ñu war a def lu ñu mën a def ci SK lu ñu mën a def bu ko nit xamee na na génn dossier yi jox ko journaliste yi ñu <laughs> loolu loolu ayut parce que régime bi moom ñi ma wuñoo ñi ma wuñoo tëj kenn ci lu mel noonu moom ay document confidentiel ak yooyu yooyu moom xewi na ba nag yor sa daxaw ci micro yi comment di sànni xeer la n'importe quoi loolu tamit nañ ko nañ ci nañ ko moytu quoi et puis tamit ngay sànni xeer koo xam ne moom faluñu ko. Ousmane hmm. Sonko moom c'est wax dëgg yàlla. comme moom lañ fal ku bon ku bukki xaj baw la d' accord mais tamit moom toogu yàgg toogu bu fi temps bu jar yenn yenn sànni xeer yi quoi vraiment. Mhm. mooy day dellu rek ci li ma ne woon nañu civiliser tuuti politique bi daal. te mhm. xam ni nguur yàlla koy joxe. Mhm. nguur moom bul sonn. kon xataraayu ak i ak i compétence rek a koy jox ke eh, moo koy jël kon Moustapha ñas balaa àgg ci as bi to doon na président Djibo Ka a ko jiitu la même chose. ak ñeneen ak ñeneen. nguur yàlla moo koy joxe. te plaque la exemple Bassirou Diomaye Faye bii rek doy na ci exemple ba tax na loolu nañ ko nangu te gëm ko waaw yëngutu nag kenn du ko taara kenn citoyen bu ne am nga sañ-sañu yëngutu mais yëngutu yi tamit vraiment bu ci xe bu ci bu ci doyadil sa bopp daal waaw vraiment man daal noonu laa gis ci kaawu Birane ba euh, Bougane waaw le reste nag il fait l'opposition il a le droit de le faire mais nag na ko jéem a day jéem a harmoniser daal ay mbir ni muy doxale daal moo gën la ca des itam le waa bëggoon naa cee sànni bu ko per. Mhm, yore la ñuy déglu yi. voilà voilà voilà voilà parce que le cas de moom ça ça intéresse tout le dëkk ak ki fa dëkkul parce que Touba dëkk yàlla dogal na moom dépendre démb rek maa ngi koy nee naa leen Touba doonatul doonatul dëkk boo xam ne dañ naan rek surtout surtout lay murit ñoo ko ñoom la concerné déedéet parce que Touba dëkk la boo xam ne kuy yeewoo ci Sénégal sa mbokk nga fa. sa mbokk mhm. dëkk na fa moo xam muy jigéen am nga jigéen ju fay sëy wala am nga mbokk mu fay daan doole. te famille sénégal yéen ni ñu ko ni ñu ko xamee maanaam ñii dañuy doon tijaan ñii doon murit ba tax na kon Touba ça concerne tout le monde ki bu doon murit ak ki ko doonul la ñoo ci nag waaw mhm. déclaration bi porte-parole bi def démb nag c'est intéressant ci wàllu cité yooyu muy wax mhm. c'est intéressant mais daal gi déglu naa seen benn mbokk wax cassette boo xam ne nii def benn vidéo laa il est ngi fii ci Italie def benn vidéo moom ma nga dëkk Touba mais wax na ci lu am solo loo xam donc jaami yàlla yi jaamu yàlla yi nañuy nañuy nañu na ñuy oto autosaisiru lañ koy wax xaw ma nañuy autosaisiru te te au niveau de Touba nañu wàññi bokkaale gi lu jóg ñu ni sëñ Touba te sëñ Touba waxu leen ko amuñ fenn fu mu leen ko wax na ñuy delloo mbir yi yàlla mm-hmm. ah la preuve élection yi passé rek dañ daan dañoo mus a tànqal ku falu ci Sénégal ñoom ñoo la fal bërki dem boo njaay Brésil bii fi toog nii falu nañ te ñoom faluñu leen loolu yëpp mais kii vidéo bi ma def après naa la ko balancer waa ji il est de Touba il est en Italie ici mais li mu wax lépp mooy parce que il faut ñu xam ne yàlla day duma ci safara day duma ci ngelaw day duma ci day duma ci day duma ci ndox waaw problème mu na ñu wàññi nañu wàññi bokkaale ga loolu mooy dëkk bokkaale ga fan ne nañ ko wàññi bu dul loolu bu ñu tabaxoon ay cité du ñu ko mën a tabaxee duñ jóg ci ay mbugal loolu mooy dëgg nañu wàññi bokkaale ba tey jox yàlla cërëm. mais jox yàlla cëram rek comme ça ci ay daaraak niite boo waxee boo waxee yow doo delloo dara yàlla man man ngaa tabaxee daara ñëw leen jàngatu salaam mais daal yow boo àddoo rek maanaam doo delloo dara yàlla pour yow lépp sëñ bi la te sëñ bi amul fenn fu la ko sante yaa ngi koy tooñ nañ génn ci yooyu te dellu ginnaaw bu baax ci yooyu bu dul loolu duñ jóg ci fitna loolu mooy dëgg hmm. waaw loolu mooy dëgg nañ wàññi bokkaale gi te tout te loolu en Sénégal doomu aadama yëpp sax la concerné mais au niveau de Touba moom lii mbugal mii ñuy ñuy ñuy daj ci ndox at mun a jàpp ne nawet bi la waaw bu fekkee dañoo jàpp ne nawet bi la rek on verra nañ continuer dañ continuer d'accord dañ continuer rek dañuy dañuy caaxaan rek nañ wàññi sa nañu wàññi bokkaale gi mooy dëgg loolu sa loolu rek mooy cause fondamentale bi du la neen asalaamaaleykum wa rahmatullah d' accord jërëjëf merci beaucoup jaajëfal ko bu baax ci kàddu yi donc wéy leen aussi yéen it euh, continuer ba tey di ànd ak ñun 77 914 64 93 ngeen mën a bokk ci waxtaan bi wax ci seen xalaat ak jàngat bi nga xamante ni mu ngeen daal di am euh, ci euh, ponk ñuy waxtaanee salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam ñu ngi lay bu baax sëñ bi. sëñ Aliou maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu di la ziar di la remercier si calme bi et tranquillité bi ak yaru bi. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Eh, waa ji jàll ni avant moom am na benn paa bu jàll. Mhm. mais xam nga ñooñ mooy wax naa ne fu ñu mag Macky si jugee Sonko bu la ci kenn Aliou. on a mhm. on a soixante trois ans d'indépendance on un système depuis trois soixante trois ans. Mhm. paa bi si la bokk paa bi moytul ñi nga xam si retraité woon na ñu ñu dagg contrat ñi nga xam si ñoo woon ci système bi di am ay contrat sans rien faire ñi ngi xam ni daaw ñu fay impôt ñi nga xam si hmm. dañ doon noos balaa seen seen doom dañ leen di dugal ci avion présidentiel ñu dem jàngi ñëw balaa bi ñëw leen liggéey et cetera y en a énormément si nañu bokk ñoom donc le système changé du leen arrangé di gis nga ni mu doon def système bi mu doon def moo tax ma dugg à ah, yàlla xam ne naru moon dugg mais j'ai vu les stratégie pas bi mais ça m'a fait rigoler mais on est ñun ñoo ngi si deux mille vingt quatre xale bu ndaw sax boo day jël internet gérer ko xam bëgg li mu xam-xam si Google kenn mënatul nax kenn. li nga baa bi day dugg naa waa kii euh, boo gisee Bougane mu ngi wax dëkk bu démocratie la dana def waaye li mu war a def da ko war a def da ngeen war a wax et cetera di wax ay affaire onage xamu ci dara di wax affaire Bougane li muy wax noonu moo la ko gën a xam mais dafay politique Bougane euh, Bougane c'est un Bougane est-ce que amul problème mu bopp Bougane dafa am si dafa problème de de de de li tubaab di wax daan euh, mégalomane moom la bi bugaan kii bugaan rëy na benn rëy boo xam ne si pour moom lu mu mën a doon rek dañ ko si war a sitaale buñ ko ci boolewul baaxul. Hmm. te loolu en tic seen ça ne marche pas. loolu mën na dox si fu mu mën a doon nga yor say milliards di ndax ñeneen ñeeg di dugg fii di génn fii. Hmm. mais bu dee en politique ça ne marche pas du tout mënul dox. c' est un problème que Boka Bougane a. Bougane hmm. tout son problème mooy n'est pas d'accord que eh, eh, Diomaye ak kii eh, ak Sonko jubóo nañu yaru nañu fépp fu nu këru diine bu nu dem ñu tàgg leen ni danoo baax danoo correct mm-hmm. c'est tout son problème pour pourquoi parce que élection yi jàll na boo xawee muus tuuti nga xam ni yow mii kat politicien dëgg nga vraiment moom nga te moo la tax a jóg te defar Sénégal moo la tax a jóg mais sa waay mm-hmm. àndal ak ñoom mais damay ànd ak ñoom même bu ma duggul ci gouvernement def ma dara ma bàyyi leen gunge leen un an un an et demi deux ans ba xool naka la ñuy taxawee. Mm-hmm. mais ëpp yow ka nga bëggoon ka nga doon xeex nga ni yow village yëpp euh, euh, loolu lay tiitaroo Sénégal yi wër nga ko dépense sa xaalis di joxe xaalis boo xam ni euh, fayoo impôt yow yaa ngi joxe xaalis boo dem te fayoo impôt ñooñu ngay jox xaalis bi seen xaalis la da nga leen di triander léegi boo ñëwee ka nga fa doon xeexal Macky Sall jóge na fi. injustice bi jóge na fi jusqu'à preuve du contraire man gisuma fi nii ñu def fi loo xam ne si nii mhm. jël na loi bi teg fële defal seen dëgg ak seen nafs gisuguma ko bopp man su ma gisoon dama koy wax donc loolu bu amee yow non man mi ni ma ko xamee parce que Bougane doful noonu la ko xamee mhm. Bougane xam na ni que ñii mais ce problème mooy tant que ñoo ngi wax ci kenn te boolewul ko ci surtout au Sénégal que il gagne de l'argent facilement il a lui aussi il parle de son ni Sonko entreprise il a ouvert combien d'entreprises et qu'on se dise la vérité Bougane moom entreprise moomu ko et quand il revenait des États-Unis et des, des médias et tout ça ils avaient des partenaires il y avait d'autres actionnaires yu ànd doon di liggéey ak moom moi je suis comptable j'ai intervenu sur là-bas quand j'étais au Sénégal j'ai intervenu dans leur service ils n'étaient pas seuls donc il jaay toj bopp te toj bopp xeewi na lii il devait être intelligent dépasser loolu mu dem ak idéem dem ak xeet xelam mu collaborer ak ku mën a collaborer boo gisee lu dul yoon euh, même bu ñu defee lu yoon sax te mu war a améliorer nga def conférence de presse wax ni lii kat lii lii da ngeen ko doon améliorer et cetera loolu moom nga lay may aujourd'hui dëgg si politique. parce que internet dafa ñëw taxaw ñun ñëpp mu yeeñu ñun ñëpp mu bokkandoo tënk ñu ci dëkk dëkk bu mu mënoon information bu mu mën a den tey jii mën nga ko confirmer. Mm-hmm. muy ñoom ñëpp muy Yérim Seck muy bu kii exemple man ñaan naa leen que yow moom euh, sëñ si ku tey nga. Hmm. fu ñu joxatee euh, benn exemple sur la France sur les États-Unis sur si et cetera dans l'histoire surtout vérifier leen que c'est faux. Hmm. yéen lu mu wax c'est faux. Bougane moi je le vérifie surtout je donne des exemples en Europe pa keroog Pape Djibril Fall jël na TFM di wax exemple yi mu jox ci Espagne yëpp c'est faux li mu wax c'est faux dugg tout de suite Google ñu jox la information bi et je je une chose pour yéen votre garde. débat bi kii kii Donald Trump bu mujj bi nii. il a avancé des choses balaa mu fay jógee ñu woote na nu vérifier information bi tourné ak moom di ko li nga wax kat woote nañu police ba nee na c'est pas vrai Pennsylvanie loolu amu fa. immigré yi ñu newuñu newuñu di lekk di lekk animaux yi. parce que ñun woote nañu fa woote nañu police woote nañu mairie bi et cetera avant muy dem il faut leur faire ça da leen di di di di pourquoi parce que ñoom déstabiliser pays bi nañu ma si dellusiwaat li tax ma woote mooy que ni il faudrait hmm. que Sénégal yi patient pourquoi le système est bien ancré je te dis moi je connais des gens yoo xam ne depuis bu ñu juddoo ba léegi de famille en famille dañuy yar seeni i doom ne si poste yi nga xam si ñu ànd nañu ak euh, euh, Senghor ànd ak Wade Abdou Diouf seen doom bu ñu jàngee externe na ñu jàngi balaa ñu chaque weekend sax boo moytul ñu ñëw chaque hmm. année scolaire bu vacances jotee dañuy ñëw vacances ci Sénégal buy egg buy jàng bi jeex immédiatement ñu ñibbi si Sénégal am nañ liggéey et c'est c'est c'est un c'est un groupuscule yu tuuti pendant ce temps-là la population mu ngi doon di sonn hmm. mais ils sont bien bien soutenus et bien solidaires entre eux il faudrait que ñun ñu ubbi si suñu bët ñun ñii ñi nga xam si ñun ñi ñoo ci topp ñun ñi gën a ëpp ëpp nag ñi si ëpp ñoom ñu lépp ñu tànqam deewoo jéem a deewoo jéem a solidaire képp ku ko mérité bu poste amee ku ko mérité nga dem liggéey fa topp Hmm? ñu xam ni que ñëpp sénégalais lañu il n'est pas normal que benn yenn déséquilibre di am Sénégal ñii di dund comme des rois de façon extraordinaire ñeneen ñi yoruñu dara bu fekkoon ne mérite rek la vraiment Sénégal euh, raw na fii yëpp am na benn système bu ñu ko doon doxalee aujourd'hui Sénégal parce que on a des ressources humaines partout on a des richesses partout mais la politique est mauvaise maintenant euh, la la, la transformation systématique du pays dafay metti au début il faut que ñu mm. on transforme les structures même des des ñëpp moom loonu demandé même Bougane mii loolu doon demandé mi ngi koy kaas tey loolu doon hmm? dafay metti et l'ONAS il day waxul lu ko neex foofu kenn jëlu fa benn ñaar dërëm di ko lekk et euh, les les preuves sont là les trucs sont là bu ñu waxee ASER booy boobu noonu il n'a même pas signé le contrat le gosse il sait même pas le truc PPA la mhm. PPA le le sénégalais bi bi euh, euh, soi-disant sénégalais bi casse c'était lui le promoteur donc il n'a pas affaire ak ASER il a affaire on l'a donné un PPA un si vous voulez je peux l'expliquer il a affaire à aux Espagnols aux partenaires qu'il a amené il doit signer un contrat de partenariat avec eux pour la répartition du bénéfice pour comment ils vont travailler ensemble ils avaient signé un contrat de sous-traitance bu Espagnols yi signé contrat bi ba pare ñoom moom ak moo war a créer une société locale boo xam ni mooy def exécution des travaux Mmh. Mais avec l'exécution des travaux, ils ont discuté, ils ont trouvé que euh, beaucoup espagnol, beaucoup Sénégal, Azer Diokhé, à 1 million, ñom ñu ko euh, li jënté tuba bi naka dañ koy bokké. Et là, c'est là où ils ont des problèmes. Le gauche il a, il été intelligent, il est allé voir avec qui le Sénégal a signé des contrats qui sont les espagnols. Il a demandé des réductions, il l'a eu. Maintenant, s'ils des problèmes Euh, sur le plan promoteur et euh, ce qu'on appelle les, les, techniciens financiers, euh, il amène la technicité et les finances, et ils n'ont qu'à régler le problème. le plus souvent ça se règle entre l'Espagne ou eh, le Sénégal su fekkee jubóowuñ ñuy dem tribunal de Paris foofu ñuy régler des questions comme ça donc voilà moi j'aimerais bien qu'aujourd'hui on est on est là pour discuter des choses comme ça ñun ñi nga xam si loolu la ñuy liggéey ñu mën a apporter des solutions mais malheureusement dafa bari ñoo xam ni tout le temps dañuy dugal si des histoires yoo xam ni de de bas étage yoo xam ni vraiment Sénégal ne mérite plus ça parce que moi yoo xam ni ils ont leur master mosuñu am stage au c'est pourquoi may jël des fois téléphone bi di bëgguma sax wax maa ngi jégalu yàlla yeneen ñi ñëpp ñëpp Sénégal taxaw ñëpp surtout des gosses comme ça qui ont payé cent cinquante mille deux cent mille par mois ba am seen master stage sax mënu ko am benn groupuscule boo xam ni qu'ils n'ont pas plus de mérite que tout de ñu jox leen des tra des postes avec des signatures ñu ñëw continuer bëgg ñu dominer il faut que ça cesse maa ngi jégalu Alioune yàlla na la taxaw d'accord jërëjëf merci beaucoup jaajëfal ko bu baax ci euh, kàddu yi donc euh, waxtu bi daan nañuy euh, dàpp lu ñu tër leen waxtu daan nañ jeex jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bi àndoon ak ñun doon waxtaanee mbirum actualité rawatina mbirum bugga